asalaamaaleykum mbokku internetu Thiès Info ñu ngi leen di nuyoo fii à travers Thiès Info seen émission ëttu xam-xam tey nag comme ni ñu koy defee chaque jour ñu fekk si sëñ Ass moom nag dootuma ko présenter macha allah ah euh, dañuy wax naan actuellement moom mooy def buzz ah donc macha allah yal na ko yàlla lafal cat ñu fas yéene waxtaanee tout ce qui actualité mais surtout nag li nga xamante ni mooy xam-xamam ndax loolu la ko nit ñi xamee sëñ As dalal ak jàmm sa biir émission ëttu xam. Euh, ñoo ngi leen di dalal ñun jàmm alhamdulilah bisimilah rahmaani rahim euh, wasalaatu wasalaamu ala rasulullahi jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Serif radiyallahu anhu jërëjëfee Cheikh Ahmed Tidiane Serif radiyallahu anhu jërëjëfee Cheikh Ahmed Tidiane Serif radiyallahu anhu borom xat pil wilaayatu muhammadiya euh, gannaaw gañ sante yàlla kaja julli ci yonent bi gërëm suñuy ñaani waajur ñoo ngi gërëm waa àddina bi di nuyu képp kuy këru kilifa diine mu nekk fii ci Sénégal ma tàmbali ko Touba Tivaouane Niassène Laayeen ba ci jàngu bi képp koo xam ne yaa ngi ci kër kilifa diine rek Cheikh Asprama jox na la loxo di la jox sa cër ak sa wàccuwaay di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Thiès Info nga xam ne sama digganteeg yéen eh, yaa ngi tooñ naan buzz bi waaye lu ma mën a mel rek yéen la. loolu man maa ko wax fier si nag ndax si euh, je suis fier d'être Thiessois Kaolack laa juddoo fa laa yaroo mais lu ma am Thiès la te wax dëgg yàlla bi ngeen may gunge tey avant may toll fi ma toll gannaaw yàlla Thiès Info la kon Thiès Info tey bravo tey fu ma mën a toll rek gannaaw yàlla maa ngi yéen ñooy ànd succès boobu di gërëm waa bi di gërëm waa bitim réew di gërëm sama clients yi di wax ñëpp maa ngi leen nuyu. salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf sëñ As ñu nag ñu ngi kontaan bu baax a baax ndax lii rek lañ ci jublu woon wax dëgg yàlla ñaan nañu yàlla képp ku ñu jëflanteel rek eh, ñu lay dégg fu kawe kawe kawe te comme ni ñu koy waxee Thiès Info est suivi partout dans le monde donc macha allah yàlla na yàlla def jàmm tey li ñuy waxtaanee sëñ As ñu ñëw ci tegtal sëñ As tegtal boo ñu doon définiral maanaam faram fàcceel ñu tegtal noo ñu koy faram. Euh, alhamdulilahi ñoo ngi sant yàlla Kaja beneen yoon di la wax ne xam-xam man aspraam nee naa ñeent la xam-xam ñeent la xam-xam ëwalu la xam-xam aaxiro la xam-xam zahir la xam-xam baatin la lan moo tax mu ne xam-xam ëwal la xam-xam man nga ko jëlee ci ndono maanaam sa baay di sëriñ walla sa maam di sëriñ yow sa bopp nga juddu euh, jàng jaar fañ jaar tey ndono bi ñëw ci yow euh, direct bi di daw nga mujj doon sëriñ ci sa baay wala sa maam benn ngi noonu mooy ëwal aaxiru mooy lu mujj xam-xam aaxiru la aaxiru mooy maanaam beneen bi xeetu xam-xam mooy xam-xamit mën nga toog ci fi nga toog yow ci aaxiru lu mujj mooy li yàlla sabab ci maanaam meññee fam yi mooy garab yi at euh, gàncax gi at univers bi du euh, ko science trouvé loolu it xam-xam la euh, xam-xam yooyu mag ñi dañ naan jël garab ci junne turi yàlla def ci garab di ci am ay tegtal di ci daan def muy am te tegtal yooyu ba tey ci xeetu xam-xam la ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi salaam ba muy jógee ko Màkka di dem Medina Kaja euh, ku ne xam na ne ay tegtal moo feeñ ci diggante gëlëm bi ba muy jóg di jóge ko Màkka di dem Medina. tegtal ak xam-xam yi ngay tudd nii benn la. xam-xam tegtal xam-xam la rek. mais ñaareel ci xeetu xam-xam tegtal bi laay joxe exemple moo wax la kajaane la yonent yàlla Muhammad ba muy jógee koo Màkka dem Medina dafa am ay tegtal yu feeñ ci ci dem bi tegtal yi mën nañ ci tudd ne yonent yàlla Muhammad ba muy jógee koo Màkka dem Medina gëlëm bi mu waroon di dem ba war a yegg ca bërëb ba gëlëm bi dafa toog ñaari toogaay jaaxaloon gaa yi toogaay bu njëkk ba. Euh, dafa toog ba mu yàgg yont bi ne déedéet mu jógaat toogaat ba mu toogee yont bi sëgg ne waaw fii la bërëb ba mu ma jàkka toog mooy signifie ne mooy jumaa ja mooy màkk di tey beneen toogawaay bi mu toogoon moo signifie ne mooy këru yont yàlla Muhammad moo tax nga xam ne tegtal yooyu tey yàlla wan ko Jibril annoncé ko mu feeñ ci maanaam ñëpp gis ko ci jamono yi jaar-jaar yont bi tegtal yooyu tegtal ni mu amee ci yont bi noonu la amee ci ñaareelu xam-xam di tegtal yoo xam ne boo defee lii nga am lii boo jëlee lii dugal fii nga am lii boo jëlee lii def li mag ñi tamit ci tegtal yooyu xam-xam la dañ ci daan jël di def ay tegtal ci wàllu maanaam lu jógee ko ci garab ndax garab dafa am ay ñooñu xasat waa kajaa mooy xar yi bëy yi at ñii ñëpp ci garab la ñuy lekk ay tegtal la yoo xam ne am na garab yoo xam ne nu garab nu maanaam mala bi di ko lekkee mu koy jëriñ te du ko lor noonu lay jëriñoo tamit mbindeef bi moom mu ko jëriñoo ti woloor ba pare di ko indil maanaam genre changement boo xam ne nekk ci jëmmam loolu tegtal la mag ñi demoon ba xam ko ci mala yi yar jur yi di leen xool ba xam garab yu gën ci faj ak garab yu gën ci maanaam wàllu yokk puissance mag yi di jël tegtal ci garab yooyu bokk na ci mboof mbëfër bokk ma ci golleen maanaam euh, xasum xay xeet yooyu yëpp ay tegtal yoo xam ne la mag ñi dañ ko daan jël di ko utiliser dem ba sax di ko boole ay alxuraan di si faj di si def tegtal la ñetteelu xam-xam bi nag moo mooy bu gën a doy waar mooy bi nga xam ne jógee ko ci yàlla direct nga xam ne yàlla suñu borom mooy jël ci xaybu ndax yàlla mooy xaybu mooy xool lu ko neex def ko mooy moo moo moo fite kaw moo fite suuf moo fite ndeyjoor moo fite càmmoñ moom ci mbiram yi ak ci xaalam bi mooy xool lu ko neex mu def ko ci jaama bi beneen xeetu xam-xam bi nga xam ne moo des nag mooy xam-xam yi jóge ko ci malaaka yi yooyu xam-xam yoo xam ne la am na ñu ko yàlla may moo tax yonent yàlla Muhammad boo koy yàlla di jox dana ko xam-xam bii téye ko pour yow at sa gars yi waaye téel bii pour yow at man boobu mu téewoon pour moom at at at at moom kese boobu la ñu xam-xamu maarifatu billaahi xam-xam boobu am nañu ko yàlla may ñuy xam ca yàlla di wax ca yàlla di dox ca yàlla di jëf ci yàlla xam-xam boobu moo war mu na la mooy ñeenteelu xam-xam bu xam ne yàlla di indi na ko teg ci jaamu yàlla. ci biir ñeenti xam yooyu ban la ci sëñ As sëñ As mën nañu wax ne ñu ngi mu sant yàlla yàlla dimbale na ko ñeenti xam-xam yëpp kajaa peeg naa ko ndax man sama maam euh, mosuma ko wax ci média euh, borom xam-xam bu mag la woon saa dàgga sanc na dëkk ànd ak ba Jaxu di buur boo xam ne dëkk ba bu fi ñëw képp koo xam ne ku ñëwoon ci dëkk ba mu ngi la doon fajee ci reen ak xob kese ba dem ba sanc dëkk ba tey dëkk ba boo demee dëkk bu mag la lépp nga fa te kook Maba Jaxu moo ko sampoon sama maam mu doon borom xam-xam mu mag naa may dégg sax samay maam ak samay baay di wax ne xam-xam bu ne woon sa saa dàgg moo feeñ ci man waaye ndamoo ma ko man li ma yàlla may laay ndamoo waaye nag man naa tiitaroo ne sama maam boroom xam-xam loolu xam-xam boobu tey moom laa jël ko véhiculé ko Ass Barhama donn na xam-xam jàng na xam-xam yàlla may na ko kët fu muy wax muy am am na xam-xam fa kon Ass Barhama peg na xam-xam yëpp macha allah maa ngi sant yàlla. Euh, euh, sëñ Ass ci biir ñeenti xam-xam yooyu nga wax dañ ciy jukki benn par benn. Euh, bi nga wax ni euh, suñu suñu suñu maam yi yenn saay tegtal ci xool mala wala ci ay garabab yi ni mel ñu jox la tegtal suñu maam yi bañ daan def loolu euh, maanaam dañ ko daan def d'abord ngir xam-xam bi ñu am mm-hmm. waaye ngir yéene mm-hmm. waaye gis nañ ni actuellement nit dina la defal tegtal ne la defal lii boo defee lii di nga am li mais malheureusement le contraire lay doon loolu lan moo koy lan moo ko waral liggéey bee yàqu xam-xam bee fi nekkatul wala caaxaan bee bari. cosaanu xam-xam bi mooy ndigal ndax suñ borom loo gis mu doxal ko rek am na fa mu ko jaaree kajaa ba ngay ñëw sama biir kër da nga jaar ci jaaruwaay mooy sama bu biir kër sama buntu kër nga jaar ñëw sama biir kër euh, xam-xam dafa am dafa la dafa am solo mooy jaaruwaay bii day jaaree ne nga daanaka si yàlla directement ñëw ci yow ndigal la euh, mu jëfee yàlla wan la bii day jaaree ci say waajur nga jàng xam ko bii jaaree ci sa sëriñu daar mu jaar waaye li base bi ci nga xam ne xam-xam yooyu réer na léegi mooy ndigal li lañ foq. boo xoolee jàng ñetti bayit ñaari bayit dem tuuti am tuuti xam-xam am ñetti client ñeenti client nga woote xam-xam bàyyi jàng mi loolu sa ndigal amul te loolu pour nga am ko dangay ngay tarbiya kaara gii njëkkee ko ci ndigli mujjee ci bopp bi looloy waral xam-xam bi ñor ba kil a jàngal xam-xam xool ba gis na yow mii lim manoon man nga ko li muy def yaa ngi koy def mu ber la loolu dal Cheikh Ass Barham ñu ne seexal nañ la Cheikh Ass Barham demal biir Thiès nga liggéeyal yàlla waa kër ñi ma seexal teg fii gàmm naa fay yoon yoo xam ne da ngeen leen di gis ñu toog fii may gàmm ñu jël ay ijaasa di ma jox parce que dañoo kontaan ci man ci liñ ma jàngal mu mokk ci man njël ma koy véhiculer di ko tasaare loolu mooy ndigal ndigal na kum amul maanaam dara lu fa beneen bi mooy nit ñi léegi dañoo sàggan ci seen i cër ndax yonti yàlla Muhammad danoon wax saxaaba yi ne leen ñaan leen yàlla ci gémmiñ gu laab ñaan leen yàlla ci gémmiñ gu masta mooy yàlla yonti yàlla Muhammad dana wax saxaaba yi ne leen gémmiñ gu masta mooy yàlla lu mu ñaan yàlla yàlla dina ko def léegi nag jamono ji moo yàqu tasaaroo boo ne sëriñ ñëpp tiit ndax sëriñ bu demee ba ñu naan day violer ay nit sëriñ bi demee ba naan day def bon sëriñ bi demee boo xam ne naan danaan ëmbal sëriñ loolu day dem ba maanaam ijaab bi nga xam ne moo ne ci làmmiñu sëriñ bi day mujj dagg te yàlla léppam boo xoolee yiw la léppam leer la léppam ndab lu set la lu ci tilim lu ci rax rek yàlla lay rocceeku. sëñ As tey boo jàkkaarlook nit ki lan moo lay firndeel ci moom maanaam tey nga jàkkaarloog Kaja lan moo lan lan ban firnde mooy am ci kajaa ba nga war a mën a génne ci moom jox ko tegtal bii ne yow lii nga war a def boo defee lii di nga am lii. lan moo la koy wan ci jëmm jooju. Euh, jëmm ji dafa am tabbeex ndax kajaa xanaa xam ne roxaan nit koo gis muy dox ci kaw suuf euh, roxaan nañ ci jëmmam roxaan ya boobu nekk ci yow ba nga juddoo di kajaa si sa ndey sa baay jur ba nga juddoo indaale woo tur tur bi ñëwul de ñuy toog juróom-ñaari fan ñu ne kajaa kajaa boobu ñu la tuddee jur bi nga juddoo sa ndey rek si biir sa biiru sa biir sax ba nga nekkee nekk ci fi nga war a ne foofu yàlla nga la fa defal sa roxaan ya ba nga ne cëpp la roxaan bi commencé di fonctionner at di ànd ak yow roxaan boobu mooy ruu rek kon roxaan mooy tax nga xam nit ndax roxaan bi moom lay feeñ ci sa jëmm sëriñ bi mën laa xool xam ban roxaan moo ne ci yow mu calculer tabeexa bi xam tabeexa bi ñaata la xam biddiw bi ñaata la tabbiha bi at biddiw bi ak xuddaam bi yaa ngi koy xamee ci jëmmam wala nga xamee ko ci kurus wala nga xam nga ko ci kërsu comme man bi ma yor nga xam ne ma lay xool rek xam la ma calculer ko ba xam ñaata la man a xam yow lan moo ne ci yow ma pratiquer loolu roxaan boobu nag ni mu amee ci kajaa am ko ci Asbram ak si ma ma sàmba noonu la amee ci Sénégal dëkk boo dem am na roxaan dëkk boo dem am na siège roxaan roxaan yooyu rab yi ñoo leen moo ñoo leen ñoo leen buure rab yooyu jinne yi moo leen buure ñoom ñu nuñ ko waafee Sénégal ci ay rawaan noonu la Sénégal ak Afrique am ñu leen ko waafee comme nga xam ne nga ne Macky Sall président de la République mooy chef de l'État l'ensemble Sénégal yëpp ku fi toog mooy sa président noonu la roxaan tamit mel ndax rawaan ak rab ak li nga xam ne mooy xuddaam ñoo ñëpp ñooy liggéey rab yi nga tey nga ne mboose Kaolack mboose rab la mais am na ku muy liggéeyal ah, muy liggéeyal am na beneen boo xam ne ñu naan ko Kumba Làmb kooku am na ku muy liggéeyal nga ne lëkk daawul mbaay am na ku muy liggéeyal ñëpp nag rawaan mooy mooy nekk seen ginnaaw. sëñ As kon nit ki rawaan bi am ak rab bokkul rawaan à la rab à part nga jël Sénégal euh, waa euh, nga nga jël euh, la population thiessois thiessois am na ay pël pël yoo xam ne ay pël d'origine guinéenne lañ mais ay nationalité Sénégal lañ am. Sénégal am na ay naar Sénégal am na ay olof léegi ñetti ñetti xeet yooyu yëpp naarañ ci olofan ci pëlëng ci ñoom ñetti ñëpp ay Sénégal lañ noonu la rawaan xuddaam ak jinne mel benn la mais lu ñu defee tajaliyaat seen jëmm mu waral kii doon tey pël kii doon joolaa kii doon maanaam li ma bëgg a xam maanaam ci nit ki ci nit ki dañ naan nit ki daf rawaan rawaan mooy loo loo boo juddoo li ruux daal luy nekk ak yow mais ndax bokkul ak rab des fois nga dem ñu ne da am rab loolu benn nit benn ji bi la wala bokkul. maanaam rawaan rab ak jinne mooy benn mais rawaan bi da nga koy judduwaale rawaan <laughs> bi nag day rab bi pour mu accéder ci ci sa rawaan lay jaaree waaw mooy ñëw première position macha allah loolu loolu mooy rab bi ñëw deuxième position ci dugg la ànd ak yow di liggéey sa rawaan moom rab bi moo tax ma ne rab bi. ak jinne ji ak rawaan bi jinne ji rab bi benn la mais rowaan bi jinne ji da ko utiliser di liggéey ci yow macha allah loolu la. yenn saa yi dañuy gis ni ci wàllum sarax lu lépp ci tegtal bi la rek euh, euh, euh, nit ñi danoo bari te wute waaye yenn saa yi dangay gis ni bàcc ak Kaja ak Fatima dañuy bokk benn sarax loolu moom lu mu lu mu lu mu wund lu mu teg. parce que tabixaam. moo la déggee nga ne ku nekk ak say say say mbir mais dañuy gis ni. waaw parce que parce que Kaja xanaa xamu ne nit jigéen bu ne. la ba chiffre sept ci wàllu ilmu nijoom góor un la ba chiffre douze kooku loolu ci wàllu asaraar dafa am loo xam ne bu ñu temps dama leen koy leerlal ngeen xam chiffre yi jigéen bu am numéro sept mooy jigéen bu ëpp wërsëg kooku tabbe xam ndox la tabbi xorox bu ndox bu fekk dafa méngoo tabbi ko ndox keneen ñoom ñaar mën naa demandoor à la fois ndax ñooñu tey boo jëlee ndox nga boole ko at li nga xam ne mooy suuf day ànd moo waral tabbeexa ndox ak tabbeexa suuf bokk bu dee nag góor gi dafa doon tabbeexa douze ba pare doon maanaam tabbeexa ndox ànd ak sett bi ñoom ñaar mën nañ sëy ndax ndoxam ndox ànd na suuf ak suuf ànd na bu fekkee nag wàllu safara la sa tabbeexa safara ak ngelaw ànd na ndax safara ak ngelaw dañuy demandoor léegi loolu waral nag tabbeexa yi di ànd léeg-léeg ci sarax léeg-léeg roxaan yi ànd sarax biddiw yi di ànd ci sarax ñaari nit ànd rek ñaari fan ñetti fan ay milliards wala ay millions feeñ ci waa ji ko takk rek ñu ne waa ji ubbeeku na parce que seen ñaari tabaxee ñoo ànd seen ñaari ñoo ñaari bidiyo moo tax euh, kajaa nit balaa ngay dugg ci sëy da war a dem ci borom xam-xam mu seetal la ba mu leer nga soog a dugg ci sëy boobu. së loolu moo waral euh, laa loolu moo waral euh, tas yu sëy tas yu bare yi dañ ciy dugg tuuti laal ci tuuti ah sunu sunu artistes yi ah gis nañ ni fan yi tas ji bëri na trop trop version bu bu ñaaw bu ne aussi yaa ngi koy dégg sëñ As ñu taxaw foofu tuuti rek lan ngay wax ci loolu. naa ko barki de moo Ndiaye gis nga Kaja euh, Sénégal yi maa ngi kontaan nag di wax ne amal nañ ma njukkal mais delloo nañ ma njukkal gi ndax wax dëgg yàlla pour wax dëgg nag. ñëpp ak may oo di ma félicité ñëpp ak may oo di ma jël sax sama compte euh, Wave di ma dugalal alal wallaay la si tellement que kontaan gi ñu kontaan ci man kon njukkal gi ma wax ne Sénégal amel nañ ma ko tey teggil naa leen ko ndax gis naa ne sénégalais yi ñoo ngi may jox li ba moom ba pare teg si naan ma Cheikh Ass Barhama loo waxati danañ ko jëfe parce que xam nañ ne loo wax dëgg la daaw waren loo fi wax lépp teg nañ siñ bët loo fi waxati jëfee kon bu ko defee nag loolu waral na. bu fekkee yow sa wàllu bopp danga nga bëgg xam maanaam ban question la. maanaam da da nga dugg tànk si wàllum sëy ma ne la occasion la ñu wax ci ndax factuellement euh, tas sëy yu tas yi bëri na non seulement bëri na mais euh, ni muy tasee ñaaw na ndax wax ju ñaaw ji da ci génnee fu nekk euh, rawatina nag suñu mbokku artistes yi lan ngay lan ngay wax ci loolu. loolu waxoon naa ko ci émission bu mujj bu ma def ak Medoune mel ni ñoom Mbaccoog ñoom ñoom ñoom Amina. Euh, gis nga kajaa il faut ñu waxante dëkk gis na Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom man am na loo xam ne mënuma mënatuma koo gëm mooy nit ki booy dugg ci sëy euh, Kaja na la si mbëggeel dugal ndax li gën a causé problème bi bit bi lay wax nag ngeen baal ma mooy euh, da ngay gis jigéen boo xam ne kajaa day nekk jigéen boo xam ne dafa toll fu mu war a amee jëkkër bu yàgg ba mag ñi sax du ñu daan am problème boo commencé ba sa cër commencé di di màgg ñu gis ne yow nii jigéen boo xam ne man nga denc maanaam boroom kër dañ lay jël ñu may la borom kër nga tàggoo at moom léegi nag euh, yooyu yëpp dafa dem ba changé amatu léegi nga gis léegi da ngay dem ba màgg commencé nag surtout bu fekkee da nga nekk nit koo xam ne da nga xaw a sàkkane sa cër dugg ci yenn euh, vie mooy di am ay far di génn di am ñooy dugalanteel di am ñooy jëflanteel ci naka sunu noonu ci wàllu loo xam ne neexul yàlla loolu boo ko yàgg di def ci sa dund moo tax toujours da ngay dem ba boo amee jëkkër jëkkër ji ngay am bu fekkoon tey da nga am euh, dañu wax nag ci bit bi carrément nëbbante amul kaja da dem ba ci biir ci biir euh, sëy bi ni nga daan encaissé ci wàllu sa diggante at sa yeneen relation yi ci wàllu euh, ngeen baal ma rapport sexuel te diggante boobu ngay nekk ci sëy yooyu chaque jour di sëy chaque jour di sëy boo demee ba toll ci jigóor koo xam ne da laa takk nga xam ne moom yàlla def na dogal na maanaam ni mu la waree maanaam satisfaire ci lal mënu ko par rapport ak ni ni nga doon encaissé ci weneen sëy yi problème day am parce que am na ñoo xam ne gore nañ pour mën koo dëkku toog loolu am na ñoo xam ne ñoom bu xoolee loolu bu fekkee seen temps mayu leen ñu mën a am liberté pour mën di ko def ci suuf te mu bëri ci réew mi léegi dañu mujj tas seen sëy dem seeti leneen parce que góor ñi ñu ci bëri nga baal ma euh, euh, nu ñu war a amee ci wàllu kattan ci wàllu sëy dafa des. sëñ sëñ As mu mel ni loolu sax mooy dem ba andi am na ñoo xam dañuy tas seen sëy pour nekk ci la leen neex mais am na ñoo xamante ni loolu mooy andi am jëkkër am far. waaw loolu mooy cause u Sénégal il faut ñu wax dëkk ji ñu bañ a nekk di naxante kajaa ndax euh, bu fekkee yow da nga yàgg di am ay copains yoo xam ne yaa ngi nekk ci naka surul noonu yàlla dogal nga dem ba ci biir nga gis koo xam ne moom pour ma satisfaire la du du doon loo xam ne lu gaaw la boo gisee boo demee ba habitude boobu nga doon def man tuuti tubaab ma naan l'habitude c'est ton seconde natire bu demee ba mu yàgg nag da ngay mujj di mujj di di jéem a yàpp waa ji xuloo yi xeex yi parce que lu mu la war a satisfaire à 100 pour cent amul képp kum daal muy góor ñëwal am naa si garab koo xam ne mu la ko joxee incha allah rabbi da ngay satisfaire sa lal sa sa soxna ndax boo xoolee loolu mooy cause sëy premier bi deuxième mooy nit ñi léegi dañoo bëgg di réserver wu. Euh, toi et moi ak wàllum intérêt bi aussi nañ ci wax intérêt diw am na xaalis diw borom daraja la ah dem sa xarit waxtaan ak moom ne ah dooma may diw moom it mu dox ko ci ñetti fan ci ñeenti fan ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen marié un mois deux mois ngeen tas intérêt boobu. Euh, très bien xam nga àddina euh, loo gis ci àddina rek dafa am base am tësluwaay maanaam nit da nga war a am fooy fooy taxaw. muy sa sa roy roykaay ñun suñ mag ñi mooy suñu roykaay maam jaara Buso euh, sa Touba maanaam suñu roykaay la soxna asu jànq roykaay la jigéen yooyu dañu daan sëy te yàlla tax mais sëy ngir kaay ma may la diw sëy mi kaay ma may la kii ëllëg lu ci mën a xew rek boo ci duggee di ci duggee woon boo ci may la diw wala may ma diw ndax borom daraja la dafa am xaalis loolu moo nekk ci dëkk boo demee ba ci biir gisatoo ci li nga daan gis wala alal ji commencé jeex parce que alal saxul nga commencé di rocceeku parce que ba nga ciy dugg duggee ci woon ci amour kon maa ngi digal maanaam seen fii di digal ñëpp ñoo xam ne ñu ngi war a dugg ci sëy balaa ñu dugg nañ ko bëgg ba pare ndax mbëggeel mooy base sëy képp koo bëggul boo sëy moom trop boo demee sëy bi day kalaate jërëjëf. sëñ am na beneen point muy xemmeem góor ñi nga xamante ne dañuy xemmeem jigéen loolu loo ciy wax. Euh, xam nga loolu yëpp manque d'organisation la euh, at boo xoolee àddina euh, léegi xale yi maanaam toogatuñ at mag ñi di pencoo parce que xemmeem yaa ngi koy jëlee ci bon bëri di. génn càmbar di gis jigéen comme ni mu dalee jigéen bi tamit góor yi dalay dal ngay génn chaque jour di am tey ji jigéen bi suba nga am jigéen bi di foof yi di foof bu yàggee maanaam dafa am loo xam ne dafa ne ci cerveau euh, ci au niveau de de l'œil et de la vision mooy récepteur périphérique ak sensation perte yi gis nga habitude bi nga xam ne moom ngay am ci maanaam relation yu bëri yooyu nga xam ne mu ngay am bu ci ay rapport sexuel di amee rek immédiatement li nga xam ne mooy feeñ ci sa biir xol bi nga xam ne mooy ngëm bi imaan bi day dëñ bu dañee dootoo gëmati yow sa bopp saa soo xoolee rek dara da nga gis ne lii loo war a mën a jaar jàll rek jàll léegi bu demee ba doon si yow habitude rek habitude boobu moom ngay continuer moo xam ne jigéen boo gis rek da mën a jaar rek jàll ju jaarat jàll bu dee bu am jabar doo mën a toog parce que jaar jàll nga mu nekkoon ci jigéen ñi. dégg ñu ne loolu feebar. feebar euh, euh, euh, tubaab di ko waxee obsédé sexuel. gis nga yaa allahu yaa rabbi yaa allahu yaa rabbi góor gu ne na koy téye gis nga yaa allahu yaa rabbi képp ku ko nekk di ko wér di suba ngoon guddi at ba ca kaja ya yaa allahu yaa rabbi si fois par prière par prière yàlla lay may ngëm-ngëm boo xam ne da ngay ragal yàlla boo wéetee at boo wéetee lu ko te e, na ma baal na ma yàlla baal mais kaja jullit yi bëri nañ Sénégal mais jullit jullit yi turu jullit yi bëri nañ Sénégal mais jullit yi ñoo des ñoo néew ndax kaja ju la xam ne moo néew da gis ay Mohamed ay Seydina ay ay ay ay Bamba ay ay ay Ibrahim ñoom ñëpp ay xeetu nit lañ mais nu ñu war a jëfee seen diine dëgg dëgg dëgg dëgg dafa des ba nga xam ne ñoom xamuñ sax lan mooy njaaloo xamuñ lan mooy lu bon xamuñ lan lu baax heure bu ñu xëyee seen bëgg-bëgg rek lañ ne te loolu mooy ñooñ xasaab xasaab yàlla leen bind ci nuuraaniya ñii mu bind leen ci nuuraaniya doomu aadama yàlla ko bind ci nuuraaniya leer la zulmaaniya bu yàlla bind li nga xam ne moo feeñ ci xar yi boo gisee ñoom ñuy ñëw di di sëy mbedd di def yaramu neen parce que dañ leen bind si si lëndëm lañ leen bind doomu aadama bind ko ci leer kon doomu aadama bu demee ba jël maanaam nuuraaniyam yi jëndee ko zulmaaniye ah y a un problème parce que boobaa yow fi nga nekkoon di sa nit ki dañ nga fa nekk ci mala di asab te boobaa nag war nga demaat ñu sangaatal la defaral sa xol bi ba nga nekkaat ci nuraaniya bi nga nekkoon ndax leer nga juddu ni liir lii soixante-six soixante si allahu soixante eh, néew soixante-six si yàlla la dellu si yàlla la jógee si yàlla lay dellu mooy soixante-six soixante-six kon yàlla ci doomu aadama moo ngi ko bind ci nuraaniya bu demee ba jubbu nag boppam si zulmaaniya kon y a problème kon foog nit ñi soobuwaat defaruwaat toog defaraat seen toogaay ba nekk ci kalimatu laa ilaaha illallaah taxaw ci yàlla xam na yàlla yàlla bu lépp di yàlla luñ nekk rek xam ne yàlla moo leen fay fekk jërëjëf. jërëjëf sëñ As yaakaar naa ni tegtal boobu leer na mu ngi noonu mbokk yi kon nañ sax di def loolu euh, ci li ñuy taxawaat rek mooy euh, euh, si sa mbokk sëriñ si gis nañu actuellement aussi moom mooy def bës sax mooy Oustaz Pape Hann ah liñ koy jiiñ noonu digganteem ak xale boobu nga xamante ni dañ daan jise fële ca résidence la Dior Thiès ah di def naka su dul noonu ci ci ci li ñu dégg ci xale bi li mu expliqué ñëpp déggandoo ko en tant que euh, marabout mbir bi metti na la. lool. gëm nga koom gëmoo. Euh, ñaari côté moo ne ci sama côté man mooy Pape Hann man miinuma ko mais waa juróom bi góor sama xarit la woon. ndax ku ne xam na ne cité Senghor sa marché Ocass man asbram fala looyu woon laa tamay am sama kër yi ma yor man paa bi daf ma bëggoon ba saa su ma jógaan sama kër boo ma gisul kër papaay pap aan nga may fekk booba góor gi moo ngi dund yàlla na ko yàlla yokk leeram kon euh, yàlla dogal na euh, bu fekkee dëgg rek la ñuy wax te yàlla tax man de asbrama xamuma famille boobu ci lu bon àddina nag moom boo siiwee. gëmoo ni liñ koy. Euh, waxuma gëm naa waxuma gëm parce que duma ma di juger mais xam naa ne daal ay nit ñu yar lañ ñoom ci diine ndax seen papa nittu yàlla la woon boo xam ne man man bir na ma ne. waxtaan nañ ci xam-xam lu bari loo xam ne xam naa ne sol na ko ci dënn xale yi te xale yooyu nga gis ma gis leen ñoom ñëpp am pabaan rek ngeen dégg am na ñoo xam ne ñu baax ñoo xam ne ñu ngi foofu ci kër gi ay nit ñu baax nit ñu jullite nit ñu jub nit ñu dëggu man xam naa leen damay dem ci biir kër gi pabaan miinu ma ko woon période bi nga xam ne moom laa daan ñëw foofu ci euh, kër gi day fekk moom mu nekkoon Dakar mais wax dëgg yàlla nit ñi nañ rafetaal jikko yi te xam ne ñun ñi xam ne ñooy sëriñ yi foo ñu ñuy may doole lu ñu jàppale pour ñuy mën di joxe xam-xam yi ne ci ñun. mais te lu ma ci gën a métti Kaja mooy bu da ko benn moromu oustaz am moo ko wax ñu mën ko gëm mais Kaja nan lañ mën a conserver ab góor jigéen di wax Sénégal yëpp. taxaw di déglu man loolu moom moo gën a métti si affaire yi parce que góor jigéen palaasam sax du wax at oustaz góor jigéen moom moom atteem moom dañ ko war mais nan la mën a taxawee moom wa lijjantiwul problème am moom moom góor jigéen di lijjanti problème jàmbur te bu fekkee dafa takk-takk suuf wax dëgg yàlla moom am na problème bu gën a garaaw bu mu war a régler moom góor jigéen burul moom parce que moom bu dee ci loolu mu nekk moom kenn waru ko sax jullee kenn waru ko suul ci jàkkay ci ci maanaam euh, foo xam ne ay julli ñoo fa ne dèjà moom yàlla alal na ko ndax yàlla rek moo rëbb tey góor jigéen jël Euh, askan ak lëmm jël asamaan ak suuf jaxase ci jamono yontu yàlla noox loolu moom waxu ci mu ngi wax ci ay problème Pape Hann vraiment loolu moom ça énervé na ma parce que Pape Hann at lu mu mën a am def na wala deful loolu sama new newu ci mais lu wóor te wóor mooy moom góor jigéen war ta wax Sénégal yëpp di déglu góor jigéen kon dafa mel ni ñun kon suñ dégg-dégg yi léegi dañoo dellu ginnaaw parce que bu ñu nee ba ay góor jigéen ñuy wax ñun ñuy dégg ay góor jigéen mooy wax ñun ñuy door a gëm ah Sénégal moom bu fekkoon tey Cheikh Ahmadou Bamba jógaatoon na ci Sénégal gii ñuy sulliwaat ko ne ko Cheikh Ahmadou Bamba sa dëkk bii ay góor jigéen ñu wax ñëpp di ko déglu wallahi lazim dana rus Sidi Alaaji malik Si bu jógoon tey ci dëkk bii waat ñu ne ko Sidi si Alaaji Malick sa dëkk bii ay góor jigéen mooy wax nit ñi dëgg dëkk noo kon Sidi Alaaji Malick Si dina am dana rus Cheikh Ibrahima même chose insta euh, ñëpp ñuy nit ñu baax ñi ku ci jógoon tey ñu wax la dëkk bi loolu dëkk bi dina ñëpp danañu ruus ba àddina bi foog ñu delluwaat xel xam ne borom xam-xam ñooy njiit ku gën ci nit ñi mooy ku jàng alxuraan war di ko jàngale kon suñu diine ko duñu mën mukk nit di ñëw di dal suñu kaw duñu banaliser duñu dal suñu kaw te wax dëgg yàlla man loolu ma métti la méttul naa ko kon waruñoo nangu ay góor jigéen di wax ci ay problème yoo xam ne xamuñ am na wala amul te wax dëgg yàlla yaakaar naa Pape Hann ko Pape Hann laa miin sama xarit la woon man Pape Hann miin ma ko xam naa ne xanaa Pape Hann bu demee bay def yenn affaire yi xanaa am na ay soxnaam kon am na loo xam ne bu fekkee moo def it jumte mënta ñekk ñàkk ci àddina waaye nag ragal naa ne kon ñoom ni ñu ko defee nii at nu ñu ko médiatiser si di yàq doomu jàmbur yàq ay gor loolu man neexuma tey neexutoo tey asbraan man condamné naa loolu te ànduma si tey ànduma si suba suñu as li nga wax am na solo ndax Sénégal moom bu ñu demee ba góor jigéen di wax di ko dégg kon war nañu defaraat suñu jikko yi defaraat suñu toogaay euh, euh, euh, mais dañuy faral di dégg lu bari bari bari bari sëriñ si ñu leen di tudd ci loolu même bu dul kaawu Pape Hann sëriñ si dañ leen di faral di dégg ñii ñu naan leen violé nañu seen taalibe yi xam nga ñii ñu naan violé nañu li mais loolu ñu leen di dégg noonu noonu sëñ As euh, loolu tamit nekk na lu doy waa parce que bu fekkee sëriñ si nga xam ñoom la ñu war a déglu ñuy ñaanal nit ñi dëkk bi war a avancer ñoom ñooy wëlbatiku di def li ni mel kon. Euh, def taxaw seetlu. léegi nag kon sëriñ si laay waxal tey kon ñun. comme ñun ñoo ñoo ñoo xam ne lu ñu def lu ndaw ñu yëkkati nañ defaraat suñ toogaay ndax euh, lépp loo xam ne luy lu ñaaw ñu war koo jàngale ci daara ji wala ci pénc mi war ko wax ci rajo yi véhiculer ko ci internet bi ne nañ koy digle sàngaay na nga war a sangu kon loolu sëriñ si yëpp lay waxal euh, nit nag euh, mënoo xam li ne sa biir xam li ne si biiru keneen man manuma loolu mais maa ngi joxe un conseil ci sëriñ si siiw kajaa dafa garaaw te àddina bi léegi boo xoolee jigéen ñi ñoom dañoo topp nit ñu siiw ñi kajaa man xam naa li ma lay wax jigéen ñi dañoo topp nit kuy wax ci rajo ak télé vérité baa ngi noonu kajaa ñaata message laa yor sama téléphone yoo xam ne ay jigéen ñoo lay woo daal dama la bëgg dama la bu nga nangam da nangam waxuma ko nag ñu banaliser kenn mais Kaja affaire bi xamal la il faut ñun ñu am maîtrise wut ay soxna yu baax comme ni ma ko defee. teg ko sama kër. sëñ da bu ma la déggee da nga bëgg a wax ni eh, jigéen ñi ñoo leen di ñoo leen di ñoo leen di provoqué ba mu tax ngeen di def loo leen bëggut a def naka sa dul noonu. defuñ lu ñu war def parce que du man. maanaam viol yi nekk ci dëkk. waaw non cest euh, il faut benn affaire moo ci am. dama la jiital ne la kuy digle di sangu di digle sangat day fekk nga sangu kuy digle sangaay day fekk nga sangu dama ne comme ñun ñoo weex dung ba xam ne ku jóg rek kii lañu dara. kon il faut ñu defaraat suñu toogaay képp koo xam ne mu ngi lay woo naan la ay ci yu ñàkk fayda bañal def ko ni asbrama man benn maa mas a toog man sëriñ man ci sama bu bii ne jigéen bu mas taxaw man Cheikh Asbrahama ne mas naa seq ak yow njaaloo ñëwal nga dénoncé ma ci tali bi mosuma njaaloo mosuma mooy yàlla mosuma seq jigéen bu sama jabar kooku man rek maa am sañ-sañ wax ko ci sëriñ yi sëriñ yi nañ ma roy nañ ma roy waxuma ngir dara maa ngi sant yàlla kon loolu il faut ñu bàyyi ko xel ne jigéen yow maîtrise bi nga am sëriñ si yëpp am maîtrise waaw mais xam nga problème bi mooy xam nga jigéen tamit yàlla yàlla moo ñu bind bind ko mais damay faral di wax wax ju xaw a doy te mu xaw a yéeme boo xoolee àddina nu ko yàlla bindee sëriñ si jigéen mooy seen problème euh, mooy seen cat mooy seen làmmeñ ndax da gis sëriñ boo xam ne euh, dara ji mu yor nu muy fooree jigéen daaneel ko jigéen bànni mooy mbiram ndax moom lu takkaay bëri bëri bu rombee agresseur bi rek bu génnee jaase bi mu daw bàyyi fa takkaay agresseur bi police bi mooy problème am police ba njiit la mooy gouvernement bi mooy problème gouvernement bi sëriñ ci noonu la affaire bi mais yàlla moo bindee xaalam bi noonu sëriñ moom moo tax foog ñu def attention ci jigéen ñi ndax ñoom rek ñoo yor màqaam boo xam ne ñoo ñu mën a manipuler ku ci amul maîtrise amoon nooy gérer rek ñoom nañ la manipuler te bu ñu la manipuler mooy mujjee ci am ni ñuy tëjee si fànn boobu yenn saa dañuy dégg naan sëriñ si dañuy sangoo wala ñu diwoo wala ñu takk loo xamante ni jigéen ñi dañ leen di fu ñu leen dañ leen di sopp dañ leen di topp maanaam loo xam ne dafay attirer jigéen gi est-ce que loolu tamit yéen benn côté tooñu leen seen bopp. xam nga leer jigéen a koy gis ak xale ndaw. nuuraaniyee ci kanam euh, jigéen mu gis at at xale bu ndaw du du du sangat du dara leer la rek xam nga dëgg ak luul dëgg du bokk nuuraaniyee ak zulmaaniyee bokkul lënd ma nga leer làmp bii di tàkk tey moo ñu mën a may permettre ñu mën a toog di gisante loolu leer la bu lënd moon duñ gisante kon lënd mag leer moom mënoo wax bañ bokk ku nekk ci jub nekk ci baax foog nit ñu topp la parce que da nga dëddu ya dëdd àddina topp yàlla foog foog ñi dëdduwul àddina bu la gisee lumière ngay doon si ñoom mooy moo nuraaniya ak zulmaaniya loolu rek la mais du sangat du dara bu fekkee yaa ngi nekk ci lu yàlla gërëm di di jaamu yàlla di waxtu bi juróom juróom di wax def li war a def leer googu mooy attiré ji yéen parce que da nga nekk ci loo xam ne lu neex yàlla yàlla di sotti. leer googu nga nga nga nga euh, tarbiwu ba yàlla may la ko lan moo la war a mën a tax yow nga am maîtrise ba nga xamante ni tey jigéen ak nu mu mënti mel. doo dugg ci piège am parce que yenn yi je me dis que ni euh, euh, euh, faiblesse la ah faiblesse la. boo xam ne ci après yonent bi la ñëwoon jigéenam moo ko jigéen moo ko daane woon yàlla ko mënta daaneel parce que sam un la tudd sam un borom xam-xam la woon bu mag boo xam ne bu daan xeex ak góor yàlla yi loo bëri bëri doole mu daaneel la sam un daraan toog fi mu toog bu waxee léegi tey mu am li dal asbrama ñëpp jox mi fan lay waxee fan lay nekkee nit ñi fu lan muy gis lu war a am wax ko léegi léeg da ngay jékki-jékki nit ko xeex du ko gis yooyu yëpp di ay xeetu xam-xam xam ne sàmmul yàlla may na ko mu toog ba toog bés rek mu takk soxna soxna ji toog ak moom guddi ne ko sàmmul lii yàlla may la nii nga xam ne kenn mënu la gis kenn mënu la daane kenn mënu la def dara sàmmul lan mooy secret sàmmul ne na noo bàyyil noonu jigéen at pexeem def ay affaire am guddi rek sàmmul ne ko sama karaw gi la sama secret bi ne rase yi nga gis mu daanu ba suuf heure bu ñu ko daggoon rek tey man dootuma mën a dara bu bàyyi bu guddi jot ñu corrompre jabar ji fay ko def ak moom ay mbir jox alal mu jël ci sam un ba guddi jot mu bàyyi moom nelaw mu dagg rasta yi ñu fekk fa takk ko ray ko maanaam jëfee ko te loolu jigéen pexeb jigéen la kon jigéen ku koy moytu daal loo mën a am ci àddina moytu ko te xam ne jigéen mooy loo xam ne moom kese moom mënal borom xam-xam dara jigéen rek moom mënal borom wilaaya dara jigéen moo mën a borom leer dara képp koo xam ne nag nekk nga ba mënta nekk utal say soxna yu baax nañ yàlla nañu yàlla suturaal may ñu ab ay maam jaara royukaay yu mel ni ñoom may ñu asu jànq ku ko ci am daal yàlla man yàlla yàlla may na ma ay maam jaara may na ma asu jànq loolu lay tëjee macha allah bu ñu toogee moom du ñu doyal du ñu doyal macha allah waaye xam naa ne fi ñuy tëjee rek mooy actualité équipe nationale ousa euh, sëñ As euh, mais équipe nationale moom lan moo tax boobu ba léegi mënul andi coupe bi ah actuellement ni coupe d'Afrique bi ñu toll euh, dañ sori duñu sori loolu bëgg nañ macha allah xam nga Kaja euh, barki de moo dama fi wax ju am solo euh, yàlla l'histoire retiendra euh, barki de moo Ndiaye laan la lañ toog fii ci suñu émission bi ma ne la nga laaj ma ci combat Balla waxuñ ci woon sax nga tëb rek balance ko ma ne la Kaja Balla Gaye day am fu ñu ko dugal te booba combat bi amagul ma ne la bu fekkee yàlla dogal na diñu dindiwul loolu combat bi du neex ci moom. li nekk ci kanam moom Balla Gaye il foo mu dindi li ma ko wax parce que fi ñu ko dugal loolu benn avant avant 2014 la jaxara tan la ma ko yàlla man ma tëdd guddi euh, gis Balla Gaye ñu koy yoor ci ab pax jël ay dàllam yi nga xam ne moom la soloon di ko pincé ay pont di ko dóor ci garbu guy loolu man maa ko teg bët loolu nag yàlla war na ba ma ko wanee ci nga ma posé question man mbiru làmb sax di sama affaire bëgguma ci wax mais nga waxee rek ma ne la loolu xam-xam boobu yàlla may mi te ma am Bachir di gis yàlla di ma wan xay bu luy ñëw ma gis loolu ne ah Balla Gaye li ma gis bu ko nee lii maanaam du maanaam du am lu ko neex ci combat bi te combat bii la dama la xoon nekk Kadia mooy gën a métti ci combat bi ñëpp xam nañ ne combat bi ma am na sax ñu koy jël TikTok di ko yóbbu di li ma waxoon di ko véhiculer ñëpp a ngi koy kii ñëpp nga ngi ko saluer ba nga xam ne maanaam boo xoolee Balla Gaye mbokkam yi ko gën a jege sax ñoom ngi may pour fexe ni ko indee nañ ko indi parce que Balla Gaye fañ ko dencoon ba léegi bu continuer di def lii li ko daloon ca combat bi ba tey denc boobu bu ko tindiwul loolu moo koy dalaat ci combat bi man maa waxaat loolu. nga di nga mujjee muy jaay xaw ma. non parce que bu yàggee nag mënatoo daan damaa gis benn affaire moo am rek mooy bombardier euh, ba ko daanee ba ma waxee loolu dañ ma laajaat ci beneen seen mais leen li dal tey jeune bër moo nar a dal Balla bu fekkee jógul. te Tyson boo xoolee mujjanteelu kéem yëpp carrière am presque mënta mujj daan benn mbër ba mu ñu mujjee si combat pour presque léegi si business la mujjee man naam dama gis Balla Gaye comme Tyson rek parcours boobu mu yoroon par Tyson lancé bu doon roi des arènes Balla Gaye lancé na ma doon roi des arènes mais fu mu toll nii problème bi mooy li daloon Tyson ba ko Bombardier daane fañ dencoon tay Balla Gaye fa lañ dencoon Tyson moo yàqal Tyson foofu ñu denc Balla Gaye foofu lañ denc Tyson kon ma gis ne ñaari dañoo méngoo niroo kii doon roi des arènes doon roi des ñu méngoo ci seen parcours ci seen célébrité seen wàllu bayre yëpp boo gisee même la niroo na xaw na kii ba nga xam ne Balla Gaye sax day roy Tyson naan mooy mooy idolam kon nag fañ ko dencoon te ñu ko fa dencoon ma xam leen lool foofu la ñu war a dem dindi loolu pour moom mën a am lu man a def ci la bu ko deful li dal Tyson nag moo koy dal. jërëjëf ñu ñëw ci équipe nationale. waaw alhamdulilah équipe bi wax naa maa ngi waxaat alhamdulilah kajaar nëbbante amul wax dëgg yàlla ay autorités yu mag ñoo may woo euh, dem nañ ba am ñoo xam ne sax def nañ accès ba yegg ci fédération bi ñoo ngi négocier ak man li ma leen wax leer na man laajuma dërëm. équipe nationale dafa am secret boo xam ne dañ ko faa defoon bien avant 2002 secret boobu laay waxaat ne moo fa ne ba léegi. Kaja secret boobu ba démb ci guddi xool naa ko dañu dañul léegi nag problème bi mooy ñun suñ problème du ay huitième de finale parce que match bi di ñëw ragaluma ko sarax rek laa gis lu war a génn sarax rek bi ñu ko génnee incha allah bi quart de finale mais ñun suñ problème mooy jël coupe ñun suñ problème du ay huitième problème lu huitième bi final moom wax ma ko mais sarax yi ñu ci war a def match san max bi ñu ma jàppantee pour coupe bi ñëw man As Brahma yor naa secret bi tey tey laa gën a wax loolu ñoo ngi may jokkoog man benn nañ ma jokkoog man directement ñu ñëw ñu dindi liñ def tegtal yu ndaw la duma ko jox ma Samba duma ko jox ma dem ba directement équipe bi ci ay moyens laa koy def may benn baa ngi nekk onze benn bi dix benn bi un benn bi di maillot neuf ñeenti maillot yooyu lañ yàq ci lu gën a aay ci équipe bi secret yi foofu lañ koy def kon il faut dirigeant yi wooma beneen bi mooy euh, li nga xam ne moo feeñ ci xam-xam boobu noonu nga xam ne moom lañ def ci équipe bi bien avant 2002 kooku sarax moo koy génnee man nee naa leen utuma alal utuma dara nañ ñëw bu ñëwee li ma am yàlla sédd ma ko ñu booleeg lu ñu am ñu boole ñu def ci équipe bi bu ñu ko defee Sénégal jël ko. mais jëf ju bon joog ñan ñoo ko def ñoom seen biir la fédération bi la wala. suñ biir la Kaja loolu wax naa ko waxati ko waxati ko ci seen yëpp parce que euh, Sénégal suul bukki suulu bukki la maanaam da ngay doon koo xam ne da ngay diriger si équipe ñeneen duñ bëgg nga dem ñeneen ñooy dem yàqal kee kii doon équipe nekk ci koñ seen ñu jël seen benn doom mu am ñoo xam ne ñu ngi si koñ bi bëgguñ doom ñu am victoire ñuy xeex doom yooyu. xeex bi ñu xeex kii di ko xeex kii di ko xeex entraîneur di ko xeex entraîneur di ko euh, attaquant di ko xeex ma sàmba di ko xam ne moo tëj jour yi nga xam ne boo xoolee ni ñuy fubalee nga xam ne ñii lu ñuy joxe du loolu la war a joxe parce que internationaux lañ booy fubal yi ñuy fubal moo gën a raw li ñuy fubal te bu ñu leen jàppalee ci wàllu mystique boobu dindi ko danañ fournir lu gën a raw li ñuy fubal boobaa incha allah rabi coupe bi daf ñëw man nag ku ma contacté ma dindi ko loolu man maa ko wax te assumé naa ko ku fi ñëw ma jox la ay tegtal jox la ay sarax yoo xam ne bu ñu ko defee équipe nationale nañu. mais am nga benn concurrent de ah mooy euh, euh, euh, féticheur bi nekk Cameroun. Mhm. waxoon wax ju rëy ja ne Sadio maane ak Salah ak xawma kan <laughs> su dugalee dina ko rey. ah kooku moom nan nga fas yee jëflante ak da nga jàpp ni day atti day jaxase xelu ma ne gis nga Kaja Sénégal nañ sant yàlla Sénégal ñu dañoo am lu Cameroun amul Sénégal dañu amul lu Burkina amul Sénégal dañu am lu benn amul maa ko wax en haute voix Sénégal ñun buñ xamoon lu ñor ñun lu ñor moo gën a garaaw jamaa ñun ay mag yu baax yu am xam-xam bàyyi fi xam-xam lañ yor kooku xamul dara xamul dara te billahi wallahi man xam-xamam la yor comme ça xam-xam loolu foo foo foo teg loolu. Euh, gis nga man ba ma ko déggee ay ree mu tax waxuma ci débat fu ne lañ may wax poser question wax ci wax ci parce que loolu du waxu dara bës lay ut am na ko un point tiré foofu laa yem. waxee ba tey Sadio Mané dugal na ah je pense su ma te dara. Euh, mais bës kenn du ko wutee noonu ko parce que xam nga bës da nga koy ramper. te man nawloo naa lool seen seen seen seen seen seen patron mooy Latir gis nga nit da ngay ramper ci àddina ba yéeg ba yegg mais pas ngay ngay ngay ngay ngay def dara pour am gis nga bës boo xam ne xam nga lu bon ci àddina euh, mooy yéeg wàcc yéeg wàcc euh, am na fi mais yéeg des faa jafe yéeg ca kaw yi des des fa looloo jafe mais wax benn affaire rek pour am bës yéeg ca kaw wàccaat amul njëriñ mais Cheikh As Barhama euh, Sey Latir at Youssou Ndour at ñeneen ñeneen ñoom dañoo rampe man sëriñ dama ci rampe jaar si fu ndaw di tëdd si ay basang di di dem ndànk-ndànk di looy ay néeg benn. waxoon nga ma ni looy nga fi néeg 5000. di dem di yéeg di def lu ne te ba tey man ay kër yu bëri tey yor fi lu ne mais nit du tëb rek benn bés rek ne Sadio man nang wax pour am bës gis nga nit da ngay ramper si àddina petit à l'oiseau faire son nid Dieu a créé l'être humain en mettant beaucoup d'obstacles l'être humain ne peut pas sauter son destin àddina li ko la yow mii xoo fi soxnin yàlla mooy dogal ci jaamam bi. il faut nga ramper wane xam-xam te amatul lu ñuy prouver ku mel ne asbraam da nga am ci Sénégal taxaw di déglu féticheur boo xam ne moom lu muy wax yàlla new ci yonent bi new ci alxuraan new ci nga koy gëm gëm nga gëm sax yow sama witi nga yàlla jërëjëf jërëjëf sëñ As at ngërëm ñeel na la waaye nag euh, li ñuy tëjee tëjee ko émission bi mooy euh, euh, d'abord dañuy jaala ki nga xamante ni moom mooy Sénégal yëpp ak fi nga xamante ni moom mooy Mali ndax fin d'année bi loolu dañ ngay tënk rek fin d'année bi euh, waxtaanoon nañu nga gi defoon révélation ne am na benn ex président d'Afrique de l'Ouest bu war a génn àddina IBK mooy ki nga xamante ni mooy euh, ancien président Ibrahima Boubacar Keïta ñu ngi koy jaale àdduna bi yëpp macha allah sëñ As ñu ngi la koy jaale. wax dëgg yàlla maa ngi jaale waa Mali. Euh, Kaja keroog dama jooy du nëbbu. dama jooy parce que waa Mali ñu bëri woon nañ ma euh, ay Sénégalais yu fa ne ku ne naan gisoon nga ko mais man euh, kajaa li ma yàlla may euh, damay ragal sax léegi-léegi pour wax kajaa lu ma wax yëpp moo ko waxoon tey yow at sa karama ngeen génn daw nekk wallaay yàlla dafa ma may te tiitaru ma maa ngi sant yàlla nii may wax ak yow nii loolu dama tëdd ba guddi ñu wan ma Mali laa gisoon carrément gis ko mu sol lu weex tàll ñu koy yor ci ab pax. ma gis population bi ñu bëri triste wax dëgg yàlla ma gis ko am ñu naan ci ginnaaw président la woon dañ ko coup d'état mais mënu woon ak euh, directement rek wax loolu parce que dafa am doom am ay am ay jaraat Kaja bëri na lu may guñ junju damay junju rek mais ku ne xam ne ne euh, dëgg-dëgg affaire bi baati affaire bi mu ko xam maîtriser ko te booy xool ni muy déroulé après da nga xam ne kii xamoon na li muy wax mais dafa junjoon rek Sénégal li ma wax si war si dëkk bi bëri na kaja mais problème bi mooy damay junj rek parce que li ma xam lépp loo xam ne moo ko waxoon tey jii si dëkk bi nit ñi dañu waaru kon man maa ngi sant yàlla ci xam-xam bi ma may ci xay bu ma may may gis di ma may may teg sama bët ci lu bëri loo xam ne li ma ko may mooy jaamu yàlla wóolu yàlla taqu waa sama xol yéenuma kenn euh, safaan yéen ñi ñëpp jàmm di ñaan yàlla jàmm jooju may ne réew mi yàlla ñëpp dal seen kaw yàlla Sénégal nekk si jàmm waa Mali maa ngi leen di ñaan xolub muñ yàlla def yàlla yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ As ak ngërëm ñeel na la.

yàlla na yàlla def euh, nga dem voter ku la neex parce que loolu dem leen vaar ngeen xool waxoon naa si kon jartul waxaat wasalaamaaleykum waaw jërëjëf na gaa yi dem vaar ah, dem dem xooli la mu ca waxoon incha allah rabbi merci beaucoup di remercier sama caméraman bu baax mu nekk nit ku disponible di remercier aussi équipe Thiès Info yëpp tarkal la di ci jiital ci bopp bi euh, euh, monsieur Seylatir ah di leen wax ni émission bi moo ngi noonu tey ëttu xam-xam lii lañ leen andiloon tarkaala macha allah jërë ngeen jëf ba suba incha allah ak beneen daanaan merci beaucoup.